ma am sama maîtrise en droit et puis def sama concours yàlla dimbale ma ma ma ma jàll bi may génn j'étais sorti major de ma promotion et puis comme après Ziguinchor euh, Kolda Tamba mm-hmm, mm-hmm. donc Dakar donc noonu ba ba nan la tegoo sa loxo yi daal ñoo def ba jiite ko yi daal mën naa wax ne yàlla yi loxo suñu borom mu ngi ci mm-hmm. parce que xam nga Mimi Touré bi mu ñëwee c'était en avril mooy premier gouvernement Macky Sall bi c'était en avril 2012 après bi Macky prêté serment mhm. ñu nommé ko moom moom ministre de la justice da dafa def benn lettre circulaire mhm. adressée à tous les magistrats du Sénégal ne ku nekk koo xam ne bëgg nga wax ne yëgal ne dañuy dañuy dañuy réhabiliter CREI képp ku ci bëgg a bokk na nga bind mhm. man bokkuma ci ñibbi noonu bokkuma ci ñibbi noonu parce que man dama jàpp ne moom man duma ma choisir fu ma jëm suñu borom moom mooy choisir. moo lay suñu borom moo may tànnal. Mhm. kon lu ma tànnal nga xam ne moo gën sax moo gën ci man daal en tant que musulman en tant que croyant et donc binduma ba jour ba le 10 mai. 2012 matin ma ma xëy liggéey bi may gaare ci ci parking souterrain bi nekk palais de justice. sama téléphone sonné il mm, y a sama collègue sama grand il a été même mon patron il s'appelle Mandiogu Ndiaye mu woo ma ne ma Alioune fan nga nekk ma ne ko maa ngi nii ci parking bi di gaare mu ne ma fi nga nekk dafa am dafa bëri bruit soo yëgee nga woo ma bi may dem sax maa ngi wax mais grand bi heure bi lu ma lan la ma war a doy à huit heures mhm. ma yéegee ma woo ko mu ne ma daal dañu am problème ministère dañu am problème ci wàllu crédit bi ma ne ko ban problème mu ne ma parce que quarante huit personnes bindoon nañ 48 magistrats bindoon nañ pour bokk ci CREI bi te 18 lañ ci soxla woon. Mhm. donc ça veut dire que yëpp dañ leen di élagué. Mhm. mu ne ma bi ñu pourvoir poste yi ba pare dafa des poste procureur spécial ki nga xam ne moom la ñu pressentiroon il ne remplir conditions yi ci wàllu wàllu jub profit bi baaxul daal. Mhm. léegi nag après ministère daal di ma daal di daal di laaj ma yow kan nga jàpp ne mën na remplir poste bi mën na ko occuper. mu ne ma man tudd la ne la Aliou Ndao daal moom xam naa suñ ko jëlee du dina mën a occuper poste bi ñoom ñu ne ko mais pourtant moom bokkul ci ñi bind léegi nag yow soo ko mënee woo convaincre ko moom dang moom nangu ok mu ne ma nag sama rak nag ma dimbale parce que vraiment dama jël engagement pour convaincre la mhm. ma ne ko bul sonn nangu naa mu ne ma nangu nga ma ne ko ah nangu naa <laughs> c'est comme ça que. noonu noonu noonu laa duggee CREI voilà. voilà kon du xamante boo xamante ak président Macky Sall. wala wala keneen wala keneen mosuma ko dégg gis mosuma ko dégg. ak Antoine Diome aussi. non non Antoine moom c'est c'est le contraire Antoine ñoo nekkandoo ensemble au parquet général de la cour d'appel. Mm-hmm. mu def ma magam man. foofu ngeen xamante. il se con ma dama bañ ba bi ñuy bi ñuy tuxu au palais nouveau palais de justice. Mm-hmm. palais Lat Dior bi man maa ko tànnal bureau. mu tafu ci sama bureau donc on est on est on xamante nañ bu baax a baax on a bokk na sax ay audience yoo xam ne ñoo ko bokk notamment euh, affaire Alex Inou mhm. délinquant la yi lëmbe woon Sénégal waaw voilà donc bi ñu leen di atte man ak moom man maa toog nii mu toog nii donc on a maanaam nañ maa ak moom léegi ba yàlla def bi ma demee CREI yi bi ñu koy affecté bi ñu nekkee parquet général dañ ko affecté à à Guédiawaye Antoine Antoine waaw comme délégué du procureur ndax pour la petite histoire lui bëgguloon sax bëgguloon sax man naa ne ko demal toog xaar yàlla mu ñëw yàlla def entre temps ñu nommé ma comme procureur spécial moom ñu nommé ko comme mon adjoint hmm. man maa ko woo ko arrête arrêté la ak Guédiawaye. yow yaa ko proposé ñu indi ko. wala non non non dañ ko nommé mu tombé dafa tombé rek dafa tombé rek. bon je veux pas dévoiler un secret mais moom xam ne Macky Sall bu yàgg. nga xamante ne Macky bu yàgg parce que yàgg na ma wax diggante moom ak Macky Sall yow loo ko si daan conseillé. man. comme magam nga woon. defal ndànk parce que kii politicien la. te yow doo politicien. loolu nga daan wax Antoine. waaw lu tax nga wax defal ndànk. non parce que moom xale la déjà. Mhm. et puis amul euh, c'est très bien mais amul une grande expérience dans la magistrature. parce que à part substitut général substitut du procureur poste bi mu bi mu gën a occupé dans la magistrature mooy délégué du procureur de Guédiawaye à part ça était substitut général à la cour d'appel de Dakar ensuite mu ñëw comme mon adjoint à la CREI donc euh, occupé wul une poste d'importance il n'a jamais été procureur mm-hmm. donc il dafa manqué à mon avis d'expérience comme mel noonu sooy engagé politique politique yi soo defoon nag dañ lay entre dañ lay entraîner ci seen seen mouvance moo tax toujours dama ko wax ne parce que dafa ma jàpp ne man magam laa dafa ma doon wax ay secret il la wax ay secret yoo xam ne du wax sax sama papa donc vraiment on partageait beaucoup de choses il me disait maa ngi yow ñu bokk compte bancaire donc su ko ku amul xaalis da ngay dem keneen jox la et donc on était vraiment très très très très donc man sur la base de ça laa ko wax ne ko moytul Macky Sall parce que Macky c'est un politicien lu mu na ci gën te yow tu yow ay magistrat nga ba léegi yéen a ngi déggante. non gëj na déggante nag ça bi ñu ko nawee ministre ba léegi à bi papa gaañoo benn message pour jàlle ko mu tontu ma mais yeneen message yi ma ko envoyé du tontu. du tontu ak li ngeen di jégantoo yi. non non non dafa falu ministre rek. <laughs> waaw moom. ko envoyé message moom tontu moom tontu na ma. lu waral loolu selon yow koo xamante da ko defoon sa frère jàppee ko sa rakk. bon loolu xam naa ci moom la rek bon moo jàpp ne xëy na peut-être euh, jàpp na ne xëy na su continuer relation yi. Mm-hmm. et puis du man rek ah parce que moom ñi nga xam ne moom moo taxoon ma xam leen. Mm-hmm. ñi nga xam ne moom moo tax ma xam leen. Mm-hmm. parce que à moom xam naa nit ñu xam naa nit ñu bëri comme man à travers man xam na nit ñu bëri. mais ñi nga xam ne moom moo tax ma xamoon leen. ñooñu ku ma ci jokkool. même même même même même même jooytu bi lay am que moom bi ñu ko nommé ministre ba léegi dégg gisatu ko déggatu mm-hmm. donc j'estime que loolu c'est lii à sa personne moom jàpp na ne su nekk su occupé yenn post yi jàpp na ne wartul day couper court ak ak ak yenn relation yi mu amoon mm-hmm. peut am na yenn na ay relation yu mu gardé mais xëy na peut-être relation jàpp na ne surtout que man je suis entré dans l'opposition moom i est il est dans le parti pouvoir donc il est mais na ñu nekk ci opposition am ñu ñu ngi ànd ñoo ñooy tuddante ay doom ñooy demante ay ngénte hmm. et pourtant ñii ils sont au pouvoir ñii ils sont dans l'opposition donc loolu c'est ça la vie du du du du argument parce que poste poste ministériel du post bu yàgg hmm. tout ou tard day jeex et les relations restent doivent hmm. man man loolu mooy sama philosophie ok man bi ma nekkee CREI ak coow li yëpp li ma amoon yëpp sama xaritu daaw yi dama leen maintenir mhm. aw ma xaritu ren man xaritu daaw ak daaw jeg man loolu laa man noonu laa jàpp ne nit noonu la war a mel pour le cas d'Antoine bien que ja cheminé nañ ensemble mhm. j'étais son patron parce que pendant trois ans mais pratiquement il a dafa coupé. dafa dafa mais c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça waaw c'est la vie nit nit. non pas du non non non non lenn rek laa ko xaw a mooy le fait que mu mu def une rétention du récépissé de mon parti. ba léegi jotoo ko si ba tey jotoo naa ko mille messages mille messages mais ina mosul tontu ci ci benn message loolu moom na ko xam ne mere naa ko ci loolu. jàppal nga ko ci ah, mere mere naa ko ci waaw <laughs> waaw. te boo ko ci wax lu jëm boo ci interpellé du la du la tontu. non non dama koy xam nga doo ko duma du ma ko mën a joindre au téléphone. Mm-hmm. parce que il est il est inaccessible au téléphone. mais par contre message yi moom di les recevoir mhm. li tax ma xam ko mooy que Aïdara Niang c'est le moom mooy direct moom mooy le mooy secrétaire général du ministre de l'intérieur mhm. dem naa ci moom waxtaan ak moom ba benn jour ma envoyé Antoine message daal di ko dupliquer Aïdara ay Aïdara Niang tontu ma ne ma que ministre bi woo na ko nekk ko dinañ ci waxtaan ñoom ñaar ça veut dire que que na sama message mhm. kon kon mi ngi jot message. mi ko jot mi jot moom régulièrement je sais que kii la mais du tontu bon c'est pas grave c'est la vie. Mm-hmm. àddina jeexul àddina yemul ci kii daal. Mm-hmm. waaw la vie continue quoi comme on dit. ñu ñu dénk la yi mu doon cours boo xam ne ñëpp dañ ci amoon yaakaar. Mm-hmm. ndax dañoo ne woon dañoo sàcc alalu réew mii dañ ko war a gox yi loolu leen yëpp. ñu teg la ci kaw ñëpp am yaakaar ne dina dellu siwaat ñu gis nañ fa jëlee tey jii amoon ay rëccu ci li nga nekkoon ci kaw bopp cours boobu. ak période ba nga ko xam nga man je suis un condition yi ma duggee CREI